mbokk yi gannaaw jéego yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ci at mi ñu génn yemook yóbbu askan wi ñu dem amal seen umra ak ziar seen agence de voyage bi ngeen taamu di Safir service delsiwaat na di beesal kóllëreem ak yéen ci dem amal umra ak ziar fële ca Medinatul Munawara li ni mel ñu tëgg ko ci ay départ yi nga xam ne jàpp nañ ko ci weer wu nekk seen kër gi di Safir service di leen gunge ak ay guide religieux yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàll gi ni mel ay professionnel yéemut foofu ndax dina leen jàppal tamit ay logement di ay dëkkuwaay yi nga xam ne yu bakkane la fële ca Médine ak ca Màkka ngir ay xibaar yu gën a yaatu mën nga leen a jege fële ca Kër Massar unité 4 villa numéro 912 dendeek plateau médical Serigne Saliou wala nga jokkoo ak ñoom ci 77 116 78 78 mën nga jokkoo ak ñoom tamit ba léegi ci 78 186 71 71 seen kër gi di Saphir Service di gunge tamit ci li nga xam ne dafa jëm ci jënd billet d'avion ba ci calcul ci li nga xam ne dafa jëm ci héritage canam dëppook ak l'islam Saphir Service yéen la fi nekkal jafe-jafe ci dem amal umra ak ziar jeex na tàkk ak kër gi di Saphir Service. Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni danga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ci Mbour Tivaouane Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité. yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jegleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt une heure jàpp vingt ngeen ci ànd ak al ustaaz abdallah baaba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa way leen di yónnee seen ay laaj si 78 179 27 59 78 179 27 59 fii si rajo Leeral FM 104.6. kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi topp ci seen alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana ak docteur Mouhamed Ahmed Lo xafidahullahu waraa ñu leen di ziar fu ngeen ñu mën a toppee ci biir Sénégal ak ci biir Afrique ak ci continent yëpp moo xam ñu ni topp ci Leer FM bi ci Louga la wala Salaam bi ci Mbàkke wala Keppaar gi ci kawlax wala sax idaacatul qur'aan muy rajo alqur'aanul karim ba ca Kawlax wala leeral ba ca Ziguinchor wala leeral ba ca Podor wala xam sa diine wala dégg diine wala xam sa diine wala sax ci réseaux sociaux yëpp ak euh, sites yi moo xam euh, Bawal TV la moo xam Fafa la moo xam yi ci des yëpp.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 sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina amma baadu fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu déglu ak fépp fu ngeen mën di nekk noo ngi del siwaat ànd ak yéen ci jataay bi nu bokk muy jataayu alfatawa di ñaan sunu boroom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ak dimbal ak yërmaande te defal leen ko Cheikh Abdallah asalaamaaleykum kon gannaaw bu ñu la nuyoo yàgg ki nga dendal bisimilah ñu daal di jublu rek ci liggéey bi baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na dafa am ay matériel yoo xam ne da koy luyee ay bâche ak chaise ak yu demee noonu waaye daal nee na li ko ci jaaxal am na yeesaa ñu koy luyee ñoo xam ni ci fi caaxaan lañ koy luye nee na ndax dina leen ko luyee wala waru leen koo luyee alhamdulilah euh, su ko wóoree ne fi caaxaan lañuy doyee bâche yi ñuy luyee wala chaise yi loola du jaadu mu di leen ko luyee ndax dañ koy sib wala day xaraam day dellu rek situation bi su fekkee ne moom su leen ko xañee duñ ko mën a am feneen yitte ji ci boppam lañ doon bëgg a def day fanqu su boobaa waajib la ci moom mu tere ko mu tere leen mu bañ leen koo luye te su fekkee ne luye ne leen ko loolu lu xaraam la day am ci loolu bàkkaar su fekkee nag dafay bari lool nga xam ne buñ ko luyoo ci moom it dañ koy luyee ci keneen ala kulli xaal du jaadu mu leen koy luyee lu gën a néew ci lu ñuy wax ci loolu mooy luñ sib ndax taawun lay daal di doon muy dimbalante ci def loo xam ne lu baaxut la wallahu taala alam jazakum allahu xayran barakallahu fikum cheikhana bi kii nee na dafa am kër goo xam ni banque dañ faa luye te banque yi xam nga dañuy jëfandikoo riba mu ni ndax dina dagan loolu banque bi di ko fay mu koy jëfandikoo wala nu muy def. alhamdulilah bala xool ndax alal ji ko banque bi fay eh, riba la wala du riba daa war a xool ndax jëmmi luye gi ci boppam dagam na wala daganut su fekkee wóor na ko banque bi bànk buy jëfandikoo riba la eh, ba noppi mu luye ko këram loola lu nekk la lañ cay wax rek mooy diggante araam la nekk ak diggante ñu sib ko diggante xaraamal ko walla sib ko ak sib goo xam ne gu tar lay doon ndax day dugg ci dimbalante ci loo xam ne mooy yàlla nga ci biir te nga xam ko su fekkee dañ koo luye te xamut lu ko tax a jóg su boobaa manees na ne xamu ko waaye bu ko waree ne banque la ba noppi yemul ci ne banque la waaye xam ne banque buy jëfandikoo riba la ba noppi mu luye ko ko kooku mu ngi dem leen te ci mooy yàlla su fekkee su ko xajee banque ba ne du am feneen su boobaa day xaraam ci moom mu jox ko mu luye ko ko su dee su ko ko xañee mu amee ko feneen su boobaa loolu yi borom xam-xam di wax ne day xaram ba tey ñenn ñu ne dañ sib waaye ala kulli xaal li gën a néew ci luñ cay wax mooy sib ko sib goo xam ne sibeel gu dëgëral dëgëral dëgëral la naam baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayra cheikh soxna si nee na eh, ci eh, umra nee na bi mu toog na bis julli ci benn julli yi rek ci julli juróomi mu ni nagal mu tawaaf mais nee na bi mu tawaafee ba pare lam doon sikk sàkka mooy ndax forcément dafa war a euh, def ñaar ràkk ci ginnaaw maqaam Ibrahim ba pare dem naani zam-zam donte tawaaf bi umra waralu ko aj waralu ko mu ni ndax loolu dafa war a am wala mën naa ñàkk mu dolli ci laaj bi mu bi mu nekkee Makka ak Medina yépp jullee néew dafa bari woon yuñ koy def mu ni nag yeesaa buy julli day day da ciy jiital du'a ul istiftah mooy ñaan bi ngay ñaan boy doog a kàbbar mu ni ndax loolu bokk na ci jule néew bi wala bokku ci alhamdulilah ki nga xam ne daa tawaaf noonu rek te tawaaful tawaafu umra wala tawaaful xajj wala tawaaful wadaa waaye dafa def rek tawaaf boo xam ne tawaafu tatawoo la jaamoo ko yàlla wër kaaba gi xam loolu moom dagan na su noppee nag kenn forcé wu ko ne ko julli ñaari rakka waaye kenn terewu ko itam ndax jàkka ji moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen tere kenn ku fa bëgg a julli muy guddi muy bëccëg bàyyi leen ko mu julli kon waxtu woo bëgg a julli wu nekk mën ngaa julli waaye ñaari rakkaay tawaaf yi ñu siiwal mooy yoo xam ne dafa ànd ak aj loolu dafa ànd ak umra nekkul charte ni ñu gënaaw maqaama Ibrahima nga koy jullee waaye foo ko ci biir jàkk ji baax na kon daal yow yaa ngi ci biir jàkk ji soo mënee tawaaf loola baax na soo mënee julli loola baax na soo mënee boole tawaaf nga julli say rakkaay itam loolu ba tey lu baax la amma duwaawul istiftaax nag muy ñaan gi ñuy jiital doon jàng faatiha bu fekkee ne julleeg néew la loola saxut lu koy wone saxul luy wone ne des na jàng duwaawul istiftaax door a def euh, door a jàng faatiha yonent bi alayhi li mu jàngale mooy boo kàbbaree kabar bu njëkk bi jàngal faatiha kabar ñaareel bi jullil ci yonent bi kàbbalu ñetteel bi ñaanalal néew bi naam jazakum allahu xayran jërëjëf bi kii nee na imaam bi nga xam ne mooy jiite ci seen koñ juma nee na daal moom dafa bari ay lënt lënt yoo xam ni buy xutba moom lay wax ay lënt lënti pas-pas ak lu nekk mu ndax dina dagan moom su imaam bi di xutba mu euh, fat ay ay noppam wala takki casque wala yu demee noonu ba nga xam ne du dégg li imaam yi wax ndax nee na day wax ay lënt-lënt yu day waar yoo xam ne ay ay bidaa la mu koy indi lënt-lënt wala yii sax ay sunna la mu koy jéem a dàq di taawil yi ay pas-pas yu ñaaw la mu koy jéem a saxal ak di ko rafetal nee na bu boobaa ndax mën naa def moyen am boo xam ne du dégg dara ci li muy wax. alhamdulilah imaam jooju di xutba di indi ay lënt yi mi def loo xam ne lu dangereux la ci dundub jullit ndax tasaare ay caaxaan ak i biddaa ak ay wax yu ànd ci lënt te moom fenn foo koy defee lu dul ci kaw minbar loola day la mën a yóbbaale lëntam yooyee ci mbooloo kenn xamul nu mu toll te su fekkee moo leen réeral loolee day dana ko fi kanam boroomam yowmal qiyaama ci bis boo xam ne Eh, kenn du amulay lu dul koo xam ne dangaa jaaroon ci siraatul mustaqim rek gëm ko di ca dund di ca woote ba dee fekk la ca moom miy déglu lënt yooyu nag dinaa xam ne ni lënt la na sant yàlla te xam ne mën na caa mucc la ca des mooy imaam jooji fan la war a mën a jaar ba mën koo xettali ba mu génn ci loolu yi muy def su fekkee ku mën a am moom ay jataayu waxtaan la na ko am moom su jaree mu dimbali ko keneen ku ko tane sax koo xam ne amaana imaam ji dana am fu ko teg wala dana am ci xam-xam ak ma loo xam ne mën naa wax ak yilimaan jooji nañ ko laaye biir mu xoolaat li muy wax ci kaw min baram bi su fekkee daa jàngut mu dem jàngi su fekkee daa jàng ba noppi dëgër bopp ñu jox koo ñu xam ci ay waaraate ak yeete ndaxte la yàlla mën koo baaxe bu jàjju ah su defee lim man lépp nag te jëriñul dara mu continuer di tasaare ay caaxaan ak i biddaa su boobaa kenn koo wax ne ko toogal di fat say nopp ndax nit ñi mënuñoo def loola waaye su fekkee ñoom waa jàkk ji am nañ kàttanu foll yirimaan jooji seet koo xam ne du tasaare lënt loolu mooy jaadu ci ñoom su fekkee mënuñu ko rek ndax dooleem ca jàkk ja ak position bam ca toll su boobaa la jaadu mooy dem seeti jeneen jàkk jullee ji fa doo toog béréb boo xam ne ay caaxaan lañ fay tasaare wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana wa allahu xayran cheikh bi kii Mauritanie la nekk nee na dafa déggoon kuy waxtaan ci jàkk ji mu wax ñaari mbir yu ko jaaxal mu ne saxaaba bi duggoon fekk yonent bi di xutba yonent bi dagg xutba bi ni ko julil ñaar rakka te gàttal ko waxtu wa muy julli ñaar rakka yi bi dafa noppi woon continué wul xutba mu ne ndax loolu wér na wala déet mu ni encore waaja waxaat ci waxtaanam ba mu ni keneen dugg na julliwul ñaari rakka tàmbali di jéggat nit ñi yonent bi ni ko taxawal wala toogal yaa ngi lor nit ñi kooku toog te julliwul ñaari ràkk mu ni kon e, ndax li waaja wax ni loolu tegtal la ni ku dugg ci jàkk yonent bi e, e, imam di xutba doo julli ñaar ràkkan ndax ñaari xadis yooyu lu wér la wala déet alhamdulilah xadis boobu yi muy junj day mooy xadisu suleyk al ataqaani xadis bu wér la dafa dugg ci jàkka ji toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dagg xutba bi ne ko ndax julli nga ñaari rakka mu ne déedéet mu ne ko jógal julli ñaari rakka te woyefal ko daal ne su kenn ci yéen duggee ci jàkka imaam di xutba ne julli ñaari rakka door toog te woyefal ko delluwaat ci xutbaam xadis bi luy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw di ko xaar moom julli ñaari rakka loolu nekku ci kon ki ko wax am xelam rek la jëfandikoo wala njortam waaye waxut xam-xam te même su fekkoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxawoon di ko xaar moom kii wax loolu lim ci jublu mooy pour bëgg a wane ne su imaam di xutba kenn du julli waaye loolu li àggale hadis bi da koy weddi mooy ida daxala ahadukum al masjid wal imaamu yaxtub fal yusalli rakataini wala yatajawas fiihinaa su fekkee ne kenn ci yéen dugg na ci jàkka te imaama ngay xutba jullil ñaari rakkaat la woyofal ko loolu kay leer na nañ amma ki dugg ci jàkka ji nag di jéggi nit ñi mu ne ko ijlis faqad aadayta toogal ndax yaa ngi lor nit ñi lenn lu nekk ci xadis bi li wane ne waa ji daa toog te julliwut nekku ci su fekkee ne jamono yi loolee di am am na yonent bi digal ab saxaabi ne ko toogal saxaabi bi xam na kuy toog na muy def xam na ne day julli ñaari rakka door a toog te luy dàq ne julli na ñaari rakka nekkul ci xadis bi su fekkee nag booba loola euh, sharia boobu ñëwagul woon maanaam santaaneegul woon ne bu imaam di xutba na ngeen toog su boobaa mën naa jamtalu ne toog na mën naa jamtalu ne julli na ñaari rakka kon xadis boobu moom kenn mënu ci sukkandiku ngir di wax naan dafa toog te julliwul ñaari rakka ndax loolu nekkul ca texte ba waaye ay njort la yoo xam ne nit a ko bëgg a dëgërale am ngëram naam barakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayran bi ki nee na moom de jullit la ci njullit la juddoo waaye nag nee na dafa gëmoon ay bidaaki bokkaale yépp yu ñuy gëm ci xamb yaag euh, tuur yeeg njabarkat yeeg yépp daal nee na da ko gëmoon te da ko doon jëfandikoo léegi nag yàlla dimbali na ko gis na sunna nee na ndax dafa war a waxaat baatu seede yi wala rek dafay jéggalu alhamdulilah ki nga xam ne dafa nekkoon di def yoo xam ne xeeti bokkaale la walla mu gëm ko dañuy xool ndax jamono jooja doo doon ku nekk ci lislaam di wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boole ko ak di julli ba noppi fas yooyu mu wax te fekk ak réer moo ko waral su fekkee ku mel noonu la day dañuy jàpp ne ab jullit bu réer la woon boo xam ne gindiku na su fekkee ne yooyu mu gëmoon da ko boole woon ak càggante goo xam ne yoonam nekkul woon ci lislaam julliwul jàngul alxuraan tuddul yàlla deful dara mu ngi ci ay xiramam kooku dañ koy jàppe kuy ay xiram bis boo xamee ne tuub na ca loola day yeesal wala day dugg sax ci lislaam la ñuy wax a mën nekk diine ju taxaw naam baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayran cheikh bi kii dafay laaj mu ni lu mel ne sportu bëri xaalis bi ci nit di jëlee ndax mën na cee yóbbu nit màkk alhamdulilah bëri day xaalis ba ci nit moo ko moom mën na ci yóbbu nit màkk mën na ci aji it bari ci jëmmi boppam moog sport yi ci des ñooyam kenn wax ne dafa xaraam waaye nag su fekkee dañ caa dolli yeneen yu xaraam yooyu ñoo xaraam maanaam la nit koy jëf te doon lu sharia tere mu boole ko ci bëre bi loola moo xaraam summi ko bay feeñal sa awra ci biir mbooloo ñi lay seetaan loolu lu xaraam la bàkkaar la di takk ay xar nga xuupa di ko Mm, fésale noonu su ko fésalul woon sax lu xaraam la waxuma la nag fésal ko ci digg mbooloo kooku moom mu jaaxara la maanaam yemul ci bàkkaar waaye bàkkaar buñ fésal la bàkkaar buñ fésal nag mooy yées bàkkaar bu nubb kon yooyu ay jëf la yoo xam ne dañ ko war a bàyyi su ko demee la ca des nag bu tudd bëri deesul wax ne dañ koy tere wala ñu wax ne dafa xaraam ala xaal nit ka lam ca faat alal la joo xam ne moom mooko ko moom naam jazakum allahu xayran barakallahu fikum cheikhana cheikh bi kii nee na dafa am bi mu doon seetaan ci portable am ba bànneex am ca um, ndox génne ci moom mu ni ndax dañ koy jàppe ni da wala da jam bàkkaar wala alhamdulilah seetaan ci ab téléphone dalu mel noonu gaar ko ca day li mat laaj mooy nan lay def ba bàkkaaram boobu yi mu wan caa génn ndax nag tëblewul ne am na bakkaar xool seetaan nga ci boppam bu dara génnul bàkkaar la ndax xool lu xaraam la te bët dañ koy sàmm waruñu koo xool bañ koy bind xool lu xaraam taxu ko woon jóg kon li muy xool mooy def na njuumte lu rëy toggoon a bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu mag la moo xam tur wuñ ko mën a jox dañ naan jaaloo wala leneen wala lu ma waaye ñoo bokk nekk kaadar bu kaadarub bàkkaar bu mag ci kabaa'ir yi ci la bokk xool gi lu xaraam kabiira la euh, ndoxum bànneex génn naat ca loola itam beneen kabiira la kon kay la ko war rek mooy tuub fexe ba téléphone am yi mu yor duut ci fas yéene xool len lu dul loo xam ne lu ko amal njëriñ ci àdduna la wala mu amal ko jëriñ ci àllaaxira def ko jumtuwaay boo xam ne jumtukaayu jaamu yàlla la waaye du ko def jumtuwaayu mooy yàlla xéewal la gu ko yàlla jox mu mën cee jëriñu ay jëriñ yu bari kon bugg ko jëmale ci loo xam ne lu koy lor ci diineem la wallahu taala alam jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na dafa ñëw fekk papam di julli mais papam day toog ci chaise wala ci fauteuil di julli nee ndax mën naa julleeg moom te bu julleeg moom ndax moom dafa war a taxaw wala dafa war a toog ni papaam toogee. alhamdulilah su fekkee ne kii julli dafa mënta taxaw ba day toog buy julli am keneen kuy julli ci gannaawam kooka mën a taxaw moom mi julli ci gannaawam day taxaw ala kulli xaal ñi xool nag euh, ndax kii nga xam ne mooy julli te toog te imaam imaamu ratib bu nekk ci jàkkaam yoo xam ne farataam mooy toog la man wala ndax kum fekk nii rek muy ñaar ñuy taxawal di julli lañ kenn ki di toog ki ci des di taxaw su fekkee imaam di nekk ci jàkkaam di julli la walla nga ñëw fekk ko taxawal bay julli ba noppi su boobaa àtte boobu yi ma tudd sànq mooy wéy foofa mooy mën naa julli ci gannaawam taxaw waaye su dee ñaar ñoo xam ne nag taxawalaguñ di julli te kenn nekku ci imaamu ratib te it amu ci kenn koo xam ne dañuy wax ne kii moo dàkk jàng alxuraan wala eh, amaana ka ay cëram mucc sax moo dàq jàng alxuraan su boobaa mooy baayam du tax mu jiite ko eh, ka gën a mën a jàng alxuraan mooy jiite suñ yemoon ci njàngum alxuraan mi it la jaadu mooy ki mën a taxaw mu taxaw jiita ki nga xam ne mënta taxaw moom mi toog sax moo warta nangu lool moo war a jiital ki ak jullee mat sëkk ci ay cëram moom mu julli ci gannaawam def la man wallahu taala alam waffaqakum albaari bi kii nee na ndax dina dagan ci moom mu jënd dugub denc ko ba prix bi yokk mu da koy génn jaay alhamdulilah denc dugub wala reen wala leneen lu mën doon bàyyi ba prix bi yokk nga door koo jaay loolu la ñu tudde ixtikaar ixtikaar da ci am bu daganut bi daganul mooy denc loo xam ne nit ñi aajowoo nañ ko ci seenub dund te boo ko dencee duñ ko mën a am wala day manqué lool ñu sonn ca su boobaa denc ko bañ koo jaay lu xaraam la ndax lor doomu aadama yi la su fekkee nag mu ngi ci marché bi bari lool soo ko dencee du tey ñuy jënd moom ñu ngay jënd ñuy jaay ngay jaay euh, su boobaa kenn du la tere nga denc loo xam ne yaa ko moom ba mu gën a cher aw xalaatin la rek ci wàllu commerce waaye su demee ba mu wóor ne bareetut wala waxtu wi la ko nit ñu gën a aajoo mu jaay ko ci bénéfice am day gën a yokk loolu xeetu calcul la rek waaye am na keneen kuy calculer leneen koo xam ne moom yokku ko day jaay léegi ci marché bi mu daal di jar mu dem jëndaat jaayaat dem jëndaat jaayaat yow mi denc yaakaar ne bis bu seeree day a baax ci yow ki doon jënd ak a jaayaat amaana moo la ëpp bénéfice ala kulli xaal euh, ginnaaw nit ñi aajo woowuñ ko loru wuñ ca kenn du ko ne bu ko denc na ko denc bu ko neexee wallahu taala alam baraka allahu wa jazakum allahu xayran lima fihi alxayr wasalaah ci tontu yi leeri cheikhana yàlla na la yàlla Euh, yàlla defal la tawfiq ak taysir defal ñu ko defal ko mboolem jullit kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yemandi seen émission al fatawa ba beneen ay bis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa miram yóbbaale sa mag ndaw bay màgg yu la tuute gooy جئي من أدنا من أنجوي تنوير سور بيتم دي جوغا قدا لانيك وانتجيم خيلم بنبالة جتوي

du tàggoo kattan weer sawara kum ndaw ñoo taxoon ba ma fuuy tey ñàkk na àndandoo na barik samay àndandoo ñépp tale ko ca gis ma ngi jooy ak mageen dagu tilim lay jooy ndax dawlu fi de sees tut li ma dal du la jooy jooyu say soppe di la jooy dam yaakaarug jooy ku fi dara bis ñëw say bakku di la jooy àdduna genti war na bur war sarin war jongama borom alal war na daw ñu koy jooy ak borom alal war na ndaw ñu koy jox jéego yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ci at mi ñu génn yemook yóbbu askan wi ñu dem amal seen umra ak ziar seen agence de voyage bi ngeen taamu di Safir service delsiwaat na di beesal kóllëreem ak yéen ci dem amal umra ak ziar fële ca Medinatul Munawara li ni mel ñu tëgg ko ci ay départ yi nga xam ne jàpp nañ ko ci weer wu nekk seen kër gi di safiir service di leen gunge ak ay guide religieux yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàll gi ni mel ay guide yu yéemut foofu ndax dina leen jàppal tamit ay logement di ay dëkkuwaay yi nga xam ne yu bakk bakkane la fële ca Médine ak ca Màkka ngir ay xibaar yu gën a yaatu mën nga leen a jege fële ca Kër Massar unité 4 villa numéro 912 dendeek plateau médical Serigne Saliou wala nga jokkoo ak ñoom ci 77 116 78 78 mën nga jokkoo ak ñoom tamit ba léegi ci 78 186 71 71 seen kër gi di Safir service leen gunge tamit ci li nga xam ne dafa jëm ci jënd billet d'avion ba ci calcul ci li nga xam ne dafa jëm ci héritage canam dëppook ak l'islam Safir Service yéen la fi nekkal jafe-jafe ci dem amal umra ak ziar jeex na tàkk ak kër gi di Safir Service. Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier dangay soxla outillage ñu ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total et de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ci Mbour Tivaouane Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité. lamp sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jegleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt une heure jàpp vingt ngeen ci ànd ak al oustaz abdallah baba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa way leen di yónnee seen ay laaj si 78